diggante ordinateur ak jafe Fatick ak Diourbel kees moom dem na final taxawee na la toog di xaar ñoom ña nga dal ca Kanda ndeysaan kees moom dem na final waaye beneen final bi diggante Fatick ak Diourbel ñoom la ñu a xaar fan la war nañ fi di mujjee bëtam yi xam kan mooy dem final fekk équipe bi nga xam ne mooy équipe bu kees bi Diourbel ak Fatick

yàgg na am ci làmb stade bi nga xam ne champion yi coow yëpp jaar nañ ndeysaan diggante Fatick ak Diourbel ak nit ak ñoom nga jox na ko avertissement waaw jox na ko jox jox na Fatick avertissement jox Diourbel toog di déglu woon daam xam nga ñoom ñaar dañoo xamante ne diggante rajo ak ordinateur taw bi dañ ciy bëree waaye nañu xam ne ñëpp ci boppam dara boo seetlu la daal ñu nekk ñu xam ne dara boo seetlu la daal du ndaw du ñuy jaawaane moo tax bis boobu champion yi ñoom yëpp dinañu jël équipe nationale bari bokk na ci ñi nga xam ne dañ dañ leen a jël dara boo seetlu la daal la ñu génne kon bu ciy bëri da nga bëgg xam li ngay bëgg lan la ñu ne équipe bi moo jël dara boo seetlu la loolu. bàyyi xel histoire daf koy bind da Fatick ak Diourbel dam ragal naa ni sut am fam ñoom ñaar ñu nar a bëree ma gis nii sut bi am waaye calcul bi dafa bari parce que ñoo bëgg bëgg te kenn nangul def action loolu nag moo ci jaaxal nit dañu bëgg nga jafe daf na ko mais ordinateur bañ nga ordinateur nga nga takk na ko nga takk na ko nga na doole Ngaye Mékhé daan na Ordinateur. daan na ko jël bu set wicc. doole feeñ na fa. Fatick toog na. daan Fatick toog na. Fatick toog na. Fatick toog na waaye dinañ eggale Général Malika ak Boy Faye. Kees ak Diourbel. Fatick toog na. Kees ak Diourbel. Fatick toog na. Favorit. ndeysaan. daan ko gis ñu ko joxe ak Diourbel Diourbel. ndax ki nga xam ne day Fatick. Ordinateur moo nekkoon ci diwaanu Fatick. mu ne 100 kilos. jël bu rëy mooy jëlu Malamane ñu ngi ci 120 kilomètres tey si gën a Fatick ak Diourbel Ragal Malika moom moo féetewoo ci diwaanu Diourbel ba le 120 kilo mooy fay Ragal Malika Fatick Ragal Malika Diourbel mooy fay Fatick mooy fay Fatick Ragal Malika Diourbel 120 kilo ñoom ñaar ñu ngi ñu ngi ko toog sa tool Ragal Malika moom moo nekk ci diwaanu Diourbel posé 120 kilos Boy Faye Diourbel Boy Faye Fatick sol Fatick Boy Faye ak Général Malika Général Malika Diourbel Boy Faye Boy Faye Diourbel jël na ko bañ na bañ na Général jël na Boy Faye Boy Faye bañ na képp ku góorgóorlu Ndar ñu dox diggante Kees ak ki nga xam ne mooy Diourbel waaye dañuy mottali cent vingt kilos yi cent vingt kilos Général Malika ak Général Malika ak Boy Faye Boy Faye Diourbel Général Malika Fatick Boy Faye koy jël jël na ko Général bañ na final moom ak Thiès. Diourbel dem na final ak Thiès Diourbel door na Fatick 4-1 Diourbel door na Fatick 4-1 Aga Jaxe moo daan Boy Faye moo daan kon Diourbel dem na final kon final ak diggante Diourbel ak Thiès.